قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحابته الهادين المهتدين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما فعليكم بتقوى الله تبارك وتعالى والمنافسة في محبة حبيبه وصفوته باتباعه وطاعته والاستمساك بهديه وسنته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعترته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فقال عمر لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر وكان علي بن أبي طالب رضي الله, رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظماء وقد قالوا إن في القلب طاقة لا يسدها إلا محبة الله ورسوله ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها حسرات وهموم وآلام وغموم ألا فسيروا بالسيرة هؤلاء في محبة خير العباد الذي من فيضه حصلت لنا نعمة الإيجاد والإمداد وقد قالوا إن الإحسان يسترق الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المحسن إلى سائر الأكوان مع ما فيه من أوصاف حميدة وأخلاق كريمة مجيدة قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فلنت منهما أفياء وأعابس أنا وأعاد رسولي لكن بالبس أعظم وفاء فدعت إلى سواج وماء سلام يلد قلبنا أسكياء وأطاع في بيتها جبريل انتهاء فأمتت عن القمار لتدري أم هو الوئي أم هو الإخماء فطبع عندك سهار سجبري فما عاد أو إلى القتاء فتبنى القدية أنا وكان سلس أولا والكيمياء ñii dafa bokk ci mag ñi nga xam ne liggéeyam seen liggéey yëpp moo doon liggéeyal yàlla jaar na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi ci buntab Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu fii ñu teg suñu loxo mu déwén dafay am téeméeri at boo demee ca gannaawam xalifaam bu tedd moo lay xalifa bu xaj di taawam xam ne moo jëloon xilaafa ci 1922 ba 1959 fi ba demee ca gannaawam rakkam ji nga xam ne rakki xalifatul xaaji Muhammad moom la maam xaaji Babacar boo ah, demee ci gannaawam xalifa bi ñu a ñàkk fii ci lew na ñeseen moom Mawlaay Alxaaji Omar Ñas fii nag ci daree at yëpp ci bâtiment bi mbooleem doomi alxaaji Abdoulahi Niass fii la ñu tëdd maam Safi Aw mi ngi fi tëdd maam Cheikh Oumar mi ngi fi tëdd maam Serigne Mbaye mi ngi fi tëdd Cheikh Tidiane Niass mi ngi fi tëdd Cheikh ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu alxaaji Mouhamad Zeynab mi ngi fi tëdd ca gannaawam alxaaj mi ngi fi tëdd kon fami bi yeb ñi teud fi fii mawlaaya Islam islam hadji ibrahim yalla dogal na mom mo nek Medina moko ko sanc way al hadji abdullah Niass le grand ak mbollem jabotam ñom ñep ñi ngi fi teud kon moy keur gu maggi keur gi tawi tabarakallah genn keur la macha allah gan ñi fu nek joge nañ fi ci aduna bi ni ñu dalé Medina ni lañu dalé dalee ni ñu nekké gan Medina ni lañu nekké gan kër gi yëpp tey gan yëpp mën nañ ne gani Alxaaji Abdoulaye Niass la kon ñi ngi sant yàlla ci loolu euh, bi nga xamee ne divisti yi ñëw nañ pour jël si kër gi ñëw jaaree ci kër maam Alxaaji Abdoulaye dugg ci famille bi ñëw fi nga xam ne mooy sawiya maam Alxaaji bi nga xam ne 1911 la fi mam Alxaaji ñëw rëdd sawiya bi ba léegi ñu defaraat ko nii ki ko defaraat mooy Mawlaay Cheikh Alxaaji Ibrahim Cheikh al Islam muy Baay Ñas macha allah moo ko defaraat كالصوم سيدنا بالبلاد وأبي سبتيه علي علي وبنيه أغلى الأباء والكمال لكم من كل قلب الإله قد أراد إلى فرجسنا عن قوت زادك الله أنصار حبكم قد برك بادي وعدنا جسدي أغلى البيت أغلى الغوار alhamdulilah sëriñ bi nee na ñoo ngi ñëw ziare Maulana Cheikh Ibrahim Niass nee na nañ ko daaw alhamdulilah yàlla def nañu fekkee ko nee na ñoo ngi ñaan si kanam Baye ñu fekke ko ay at yu bari. sëriñ bi nee na ñoo ngi nuyu waa Sénégal. ñu ngi nuyu waa Afrique. ñu ngi nuyu waa adduna bi yëpp. nee na tey bis bi na Medina adduna bi yëpp ñoo ngi si biir. mboolem nationalité adduna bi yëpp ñoo ngi si biir tey nee na te dara indiwu leen lu dul ngir sant yàlla sant nee na ngeen sant yàlla nee na ñoo ngi tawasulu si kanamu baay di ziyaare baay nee na di leen wax yéen ñëpp ngeen yaru si kanam baay nee na baay dafa yaru woon si kanam yàlla dafa dafa yaru won ci kanam yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa yaru won ci kanam Cheikh na Tidiane Serif radiyallahu anhu nee na kon ñun dañoo wara yaru ci kanam bay ndax liñ bëgg ci yalla lañ ko soxla neena liñ bëgg ci yalla lañ ko soxla te mom moy suñu buntu ci yalla te neena mom mi moy suñu buntu ci yalla te nak mbir mi yaru rek mo koy joxe neena mbir mi yaru rek mo koy joxe nee na kon nañ leen yaru. di nuyu mboolem sëriñu Sénégal yëpp. nee na moo ngi nuyu mboolem sëriñu Sénégal yëpp. di leen ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. yàlla dimbale leen ñoom ñëpp. yàlla dimbale leen ñoom ñëpp. ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn message boo xam ne moom la ñuy véhiculer. nee na ñoom ñëpp ñoo bokk benn message bi nga xam ne moom la ñuy lancé. muy oote rek jëm ci yàlla. muy oote rek jëm ci yàlla. oote jëm ci sa bopp waxuñ la waaye ku oote jëm ci yàlla rek ñu ngi sa gannaaw nee na ku woote jëm si sa bopp waxuñu la mais ku woote jëm si yàlla rek ñun ñu ngi ànd ak yow ndax yàlla rek lañ lañ àndal ndax yàlla rek lañ àndal Cheikh Ibrahima nag lim ñuy digal nee na Cheikh ibrahim Niass lim ñuy digal déglu leen mooy ñu bëgg sëriñ si nee na mooy ñu bëgg sëriñ si yëpp bëgg julit yëpp bëgg julit yëpp respecté leen respecté leen di dimbale wante ak ñoom te bañ di xuloo te bañ di xuloo mbaa ñuy xeex mbaa ñuy xeex ndax ñun ñooy benn mbooloo. ndax nag ñun ñooy benn mbooloo. boo xam ne ñoo bokk benn alxuraan. boo xam ne ñoo bokk benn alxuraan. bokk benn yonant. bokk benn yonant. sallallahu alayhi wa sallam bokk benn kaaba. bokk benn diina muy lislaam. bokk benn diina muy lislaam. kon nag dañoo war a ànd ñun ñëpp. nee na kon nag dañoo war a ànd ñëpp. dimbale wante. di dimbale wante. te bañ di xiiroo wante. te bañ di xiiroo wante. ndax dafa am ay noonu lislaam. nee na ndax dafa am ay noonu yoo xam ne dañuy bëgg a ño xamne dañuy bëgg neew lo doole. léegi bapudole ñun suñ néewalee suñu bopp doole ci suñu biir. nee ñun suñ néewalee suñu bopp doole ci suñu biir. dafay tax ñoo am doole ci suñu kaw. day tax am doole ci suñu kaw. te du intérêt ben sëriñ. du intérêt ben julit du intérêt di len o di len wax ne ta'ala ila kalimati sawa wa di leen woo di nak ñu pour ñu ñew ci yalla bi nga xamne ñun ñep ñofa wara dajé ñun ñep fa lañu ñu pour and rek jëm ci yalla pour ànd rek jëm ci yàlla di dimbalante ci yalla pour di préparer pour di préparer bés bi nga xamne ne bés bi nga xam ne mooy yi nga xamne ne mooy bés yi nga xam ci la ëllëg nit ñi di jëlé seen bénéfice ci le ëlëk nit ñi di jëlé seen bénéfice juma ji nak ñu ngi koy ñu ngi ni nee juma ji nak ñu ngi ni adduna bi yëpp ñëw nañ adduna bi yëpp ñëw nañ nee na bunt bi ubbeeku na. taal nañ suñu tàkk. nee na nee na tàllal nañu suñuy loxo. di oo mboolem jullit yi. di oo mboolem jullit ñëpp. pour ñu ñëw. ñu ànd. liggéey bëggante. nee na gannaaw loolu. ñoo ngi gërëm Serigne Bara Mbacké. xalif général de Mouride. xalif général de Mouride. dem ak ay nag. nee na te dara taxul mu yónnee ko. lu dul kóllëre bi nga xam ne. lu dul kóllëre bi nga xam ne. moom moo doxoon diggante diggante famille ak famille Cheikh Ibrahim. moo doxoon diggante famille ak famille wala na Cheikh Ibrahim. diggante Serigne Fallou Mbacké. diggante famille Mbacké. ak euh, Cheikh Ibrahim Niass. ak ak Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass nag. nee na Cheikh Ibrahim Niass nag. xaritu jullit la woon. nee na xaritu jullit ñëpp la woon. xaritu Serigne si yëpp si yëpp la woon. xaritu nit ñu baax ñëpp la woon xaritu borom xam-xam yëpp la woon kat la woon nee na soo xoolee néegam bii nga xam ne néegu suuf la néeg bu màggat la nga xool si wetam gis jumaa ji nga xam ne li mu am si alalu àdduna yëpp def na ko si di nga xam ne emalewut ak yàlla dara emalewul yàlla ak boppam emalewul yàlla ak lenn. nee na kon nag nee na bàyyi ñun ñoo ngi nii dékk suñu loxo yàlla di ñaan yàlla yàlla fajal mboolem ajo si soron teraanga bi nga xam ne Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké duut ne tey la ko fi commencé yónnee keroog ba mu toogee ci xilaafaam ba léegi yàlla na ko yàlla te yàlla dolli ko wér te dolli ko kàttan ba mu fi toogee ba léegi wax dëgg yàlla at mu jot ci tabaski gàmm jot gàmmu daaw ga yónnee na fi nag ak gëlëm gàmmu ren gi yónnee na fi nag ak gëlëm loolu nag soo amee dara lu muy dund lu muy ju dafay firi ne Cheikh Mouhamad Lamine Bara xam na ne moom njaboot gi nekk Medina Baye tey njabootam la ndax moom yëg na dëkk bi yëg na Baye ñës xam na kan mooy Baye Niass te eh, am na yoo xam ne yu bëri yoo xam ne yu doxoon diggante moo Mawlana Cheikh Ibrahim ak baayam bokk na ci ngan gi nga xam ne dañ koy fàttaliku toujours mu neex ñu torop muy ngan gi Baye fàttaliku ngan gi Baye jóge woon fii dem gane ji ko Touba. bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ba tey jii tey tey bokk na ci li ñuy fàttaliku ci kéemtaan yooyu ak yu baax yooyu mooy photo bi nga xam ne tey jamono yëpp ñu ngi koy bëggee photo bi nga xam ne Baye Niass mi ngi lëngante ak Serigne Fallou mi ko lëng ñoom ñaar ñuy waxtaan bay ree photo boobu Cheikh Mouhamed Lamine Bara wax na ñu ne moom moo ko moom moo ko tiiroon moo ko photo woon ndax mu ne li taxoon mu photo ko daf leen a gis ñu taxaw ñoom ñaar mooy leen yéen ñaar ñii taxaw de seen taxawaay bi neex na yàlla trop te naqat dina seytaane dama bëgg comme jamono dana ñëw ba nga xam ne am na nit ñoo xam ne dañ cee war a jariñu dama bëgg ma tiire leen carte photo leen bu ëllëgee jamono jariñu ci yaakaar naa tey photo bi foo toll tey gis ni ñaa ngi koy jaay ni ñaa ngi koy jëfandikoo euh, liñ ci gàttal daal di ko wax ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Maadi mi nga xam ne moom xamante ne ak Cheikh Mouhamed Lamine Bara bu baax a baax ndax ñoom ñaar bokkoon nañ nekk ci bitim réew. muy euh, nit koo xam ne man dey ci li ma natt te xam ko ci njub te jàngee ko su may baay ak su may maam euh, Cheikh Mouhamed Lamine Bara xam naa ne ku bëgg yàlla la ku bëgg yonent bi la ku ñamee uuf njaboot la Sénégal yëpp mën na leen uuf. dañuy wax ne teraanga boo ko defee ci benn kër sëriñ def nga ko ci kër sëriñ yëpp fii Medina Baye ñun loolu la ñuy wax moo tax suñu ubbi jumaa ji ak suñ gàmmu gi ku ñu ko fonk fonk nañ la nag bopp ci yow danañ tey suñ njaamur danañ tey danañ tey suñ bopp ci yow eh, ndax dafa rëy ci ñun rëy boo xam ne événement la boo xam ne àddina bi yëpp ñu ngi bëbb di ñëw fii di ñëw di seet eh, jumaayu baay ji di ko sanc di ñëw di ubbi si di gàmmu si loolu terangale joo xam ne ku ñu ko fonk la rek danañ la fonk danañ la teg eh, danañ la teg foo xam ne teguñ fa kenn te Cheikh Mouhamed Lamine Bara fonk na kër gi fonkeel goo xam ne maa ngi fàttaliku màggal ga ma teewoon daaw ren teew ma def fekk ma dem Mauritanie waaye màggal ga ma teewoon daaw ak suma naataangoo kilifa diine yafa ne bañ ñëwee ba agsi ci wax ji moom ci boppam moo ma joxeñ ne ma yow yaay wax ci turu ki yëpp dafa xam ne pay bi pay yëpp xam-xam la pay yëpp njub la pay yëpp leer nit ki nga xamee ne noonu la Touba nekkee pay yëpp xam-xam nekk ko pay yëpp nekkee ko pay yëpp loolu du loo xam ne lu tumuranke la diggante Touba ak Medina Baye ndax loolu dafa yàgg ci jamono Maam Alaaji Ablaay ñi ngi fàttaliku Baye Niass mi nga xam ne teraanga ji yëpp moo ko waral xéewal yi yëpp moo ko waral Baye Niass moom radiyallahu taala anhu ba mu amee ñaar fukki at ak benn toll ci ndaw loo xam ne dafay jàng ci la taalif téere bu ñu wax ruwul adab te téere ba ba muy jeexat tudd na Cheikh Ahmad Bamba ba ko ba tuddeeku ko ku tedd gi xat xaala fi hadha al majalil amjadu al amjadu mooy lan ci arab mooy ku tedd ki ñu dem ba jamono nag nit ñi murit yi ak taalibe yi suñuy tudd Serigne Bamba rek ku tedd ki la ñuy wax kon ku tedd ki Baye Niass moo ko njëkk a tuddee ba pare tuddee ko xadimu taaha ahmadu xadim ak xaadim bokkuñu xadim moo gën a foor fu xaadim nit ñi ñoom ñooy wax Serigne Bamba xaadimu rasul waaye Baye Baye moom xadim la ko wax xadim moo gën a foor xaadim euh, kon Baye Niass nit la koo xam ne xam na gëdd ak Serigne Bamba xam na gëdd ak kilifa dinii fi nekk maa ngi fàttaliku ba ma toogee ak Cheikh Salih Mbacke ca xelxoom de radiallahu taala anhu lam ma wax bokk na ci li tax sa maam Cheikh Ibrahim gën maa neex mooy dafa xam kan mooy Cheikh Mouhamad Cheikh Ahmad Bamba kon nag ñi ngi ñaan diggante ñaari kër yi yàlla na fi ja jàmm di yàgg nekk yàlla fi teraanga di jàgg wéylante ñi ngi ñaan yàlla ñaari xalifa yi fi nekk xalifa Cheikh Ahmad daam mi nga xam ne ay rakkam ñi ngi fi teew ci dëkk bi dara manqué wut soo duggee ci dëkk bi da ngay foog ne xalifa bi dafa tëdd néegam rek nit ñi di def loolu nag soo amee dara lu ko waral mooy ne ay rakkam dañoo jóg taxaw dalee ko Cheikh Ahmad Tidiane ba ci gën a tuuti ba ci Mouhamadul Mahdi mii ba ñuy ub ba ñuy wax ne ubbi jumaa ji boobaa léegi juróom benn weer dafay summeeku moom ci boppam euh, sol pantalon sol tubay aw sa ak njiit laay lu gàtt nekk ca jumaa ja di liggéey moom ak euh, rakkam Mouhamad Abdourahman Ibrahim ak doomi yi fi ne liggéeyal nañ seen mag ba seen mag gërëm leen man day maa ngi seede ne Cheikh Ahmad Dame radiallahu taala anhu euh, Cheikh Ahmad daam gërëm na ay rakkam ñi ngi ñaan yàlla yàlla dolli ko wér yàlla yàggal ko suñ kanam moom ak kilifa diine fi nekk yëpp ci darajaay Maulana Cheikh Ibrahim Cheikh Mouhamad Mahdi ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal yàlla ndax su fekkee ne def nga lii ci jamono ci xilaaf ak Cheikh Ahmad Daam loolu du lu tumuranke yow nga def ko ndax wax naa léegi ne la mën ak yow li ñu boole dafa bëri ñoo bokk baay ñoo bokk yaay ñoo bokk lépp kon ñi ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan dolli sa teraanga dolli sa mbooloo may la jàmm may kam xam-xam leer te yaatu te wér te may la njaboot goo xam ne da leen mën a uuf ci wërsëg ak ci lépp wa ma zalika ala bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullah La ilaha illallah La ilaha illallah sant yàlla waye tamit dañ koy sante ci buntu Maulana Cheikh ibrahim radiyallahu anhu loolu tam lutax moy dañ koy jëlé yax bi ci alquran jëlé ko ci sunna moy alquran moo ñu wax ne fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yàlla bu la xéewalee bokku na ci sant yàlla waxtane xéewal yu la yàlla may yunus sallallahu alayhi wasallam sallam ne man lam yashkurina sallam yashkurillah ku dul sant nit doo sant balaa ñuy wax faydu balaa ñuy wax tarixa dañuy wax lan mooy cërëb jigéen ci lislaam bu jëkk lu jiitu lislaam da ngay am jigéen doom bu jigéen sax waaye bu ñu la nee sa soxna doom bu jigéen la am sax alquran mu ñu ko nettali da ngay gis kooku ñàngal kanamam ñaawal ko lu tax sa parce am na doom joo xam ne bëgg ko woon a am doom ju doom ju góor la buggoon a am ba nga xam ne sax loolu du doy waaye dañuy jël sax seen doom yi di ko suul fekk ñuy dund ba alquran nettali ñu ko ne maanaam dañuy suul seen doom yi jigéen yi di dund ñooñu ñuy suul ñuy dund pourtant defuñu benn bakkaar kon dañ dégg benn bi ci suñ trondoor Cheikha Mariama Niass mu wax ne jigéen ñëpp war nañoo julli ci yonent bi sallallahu alayhi waaye jigéen moo gën a war a ëpp lu mu julli ci yonent te jigéen moo war bu déggee yonent rek mu ne sallallahu alayhi wa sallam loolu fa ñu yonent jëlee ak fam ñu indi moo tax Cheikha Mariama wax loolu waaye ñun tam loolu dañ koy dëggal fii nii ki faydu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu duñ wax ne bàyyi fekk na ñuy suul ay doom yu jigéen ci zahir waaye fekk na ñuy suul seen maana mooy lan bu njëkk dañ daan wax ne maanaam jigéen jarul muy jàng dañ daan wax ne jigéen jarul muy jàng xam-xam jarul muy jàng alxuraan wala même su jàngee alxuraan jàng xam-xam sax dañ koy tëj ba nga xam ne lim xam du ko mën a exploité du ko mën a jëfandikoo dégg nga kon loolu noonu Cheikh Ibrahim moo ñëw dekkal loolu sulli jigéen ñi seen ci seen maanaam ci seen xabru yooyu ñu nekkoon te suñ waxee sulli jigéen ñi mooy tinki leen jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam may leen ay lijaasa ñuy yaree comme ni nga xam ne góor ñi noonu noonu la ñuy yaree ci yàlla kon loolu Cheikh Ibrahim moo ko delloosi radiyallahu anhu kon. li maanaam cër bi nga xam ne jigéen am na ko ci faydu mooy cër bi ab bi nga xam ne euh, jigéen am na ko ci lislaam loolu li muy tegtale kon bàyyi mooy cheikhul islam ndax lim jàngale yépp lislaam kese la alquran moo ñu jàngaloon ne innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati ba ca wa zakirina la kasiran wa zakiraati aadallahu lahum magfiratan wa ajran azima kon buñ waxee jullit bu ji góor rek danañ tudd jullit bu jigéen kon ñuy sant ñuy gërëm ñuy ñaanal ñëpp yàlla may ñu ñu dellu si fiwaat ay gàmm gàmm gu nekk yàlla yàlla may ñu lépp loo xam ne mooy suñ càkkutéef may ñu fan ak yonent bi sallallahu alayhi barke Cheikh Ibrahima jotaay bii nii ci barke jaami yàlla yi nii ilaha illallah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 lislaam rek lañu doon si maam yi lislaam moo teral Sénégal ba mu agsi fii lislaam moo ko teral ba ngeen gis àddina fu nekk jóge fa ñëw pour Sénégal kon nag bu ñu gisee xale yi jël seen dund def ko ci lislaam di woote dafa fekk ne loolu lañ doon dafa fekk ne loolu lañ xam te fekk itam ne loolu rek moo mën a defar naka jekk euh, euh, réew mu nekk soxla na ay doomam ñu dimbale ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla dimbale leen ñu ngi ñaan yàlla itam yàlla boole leen ci soldaaram yi nga xam ne moom la dig yónnant ne ko jamono bu nekk dinaa la beesalal sa mbir mi te ay nit rek da koy beesalee ñooy jundullahi fi kulli makaan yal na yàlla boole leen ci junut yooyu boole ñu ci ñun ñëpp taxawal taxawal suñ bopp taxawal suñ diine taxawal suñ réew taxawal lépp loo xam ne baax na yàlla nañu ci yàlla taxaw dimbale ñu ci yenn yàlla dimbale leen taxawu leen mënoon ngeen a soxlawoo lu nekk waaye soxlawoon ngeen seen diine soxlawoon ngeen seen bopp te loolu rek dëgg-dëgg moo am njëriñ pour peuple bu nekk ñu sant yàlla bu baax. ñu yàlla dimbale ñu mën dimbale suñuy doom ak suñuy sët ba ba génn leen ci wa taarixiya al anifa jiddan yàlla ñu yàlla dimbale ñu noor leen jazakumullahu الحاج عبد الله المشري من موريتانيا هذه مناسبة عظيمة مناسبة الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك حيث كان الشيخ إبراهيم يعلم أن يكون الاحتفال بالمولد رجوعا إلى الله توبة وذكرا وشكرا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بالآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلا محبة إلا باتباع ولا آه، رجوع على الحق إلا بتمسك بهذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم كما نص القرآن بعث رحمة للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذا الاحتفال من أعظم مقاصده تذكر هذه النعمة والرجوع لهذا الدين والشيخ إبراهيم كان علم أصحابه نيجي في ذكر حاج مشري حاج مشري دومي محمد مشري Mouhamadou محمد مشري كان له ci muqaddamu baay yi Mouhamadou Michri ki ko jur muy Abdoulaye Ibn Haj mooy ki feeñal baay ci senegal mooy ki nga xam ne moo doon laaj yàlla kan mooy asxaabul fayda doon jigéen jiite mbooloo daayira euh, lu yomb la ci baay ndax baay moom nee na amul jigéen góor yàlla yëpp góor lañ parce que jigéen ji bu jaaree fi góor ñi jaar rek góor la kon góor yàlla moo am jigéen yàlla amul euh, jigéen nag damay wax ne dafa mës a nekk yarkat ndax ku juddu ci jigéen nga jaar te li lislaam wax ne almara hiyal ula mooy école bi njëkk kon jigéen école la ci boppam بذكر الذي قطاب بدءا ومختاما أسادل فيه البرق ليلي Ibrahim est le symbole de l'existence. Cheikh Ibrahim, il est le symbole de l'amour. Cheikh Ibrahim est le symbole de, de, de, cette vie-là qui fait que nous sommes tellement perdus et englobés dans son amour qu'on a seulement refuge qu'à lui. Nous avons quitté la Côte d'Ivoire pour venir vers, vers, le Coran nous sort un verset, il y a un verset coran qui nous dit, il dit, Fafirru ilallah, il dit, accourez vers, le, vers votre Seigneur. Et accourir vers le Seigneur ne veut seulement dire que accourir vers les hommes de Dieu. Or, l'homme de Dieu du temps, de l'époque, de tout le temps, c'est Cheikh Ibrahim. Salam alaikum tous les Sénégalais. Nous sommes des Ivoiriens qui sont quittés Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour venir faire euh, le malou d'ici à Kaolac. Vraiment, pour venir vivre la réalité euh, de Baïnias. Baïnias, vraiment, c'est une réalité. Il faut vivre. Il faut vivre pour connaître la réalité de Baïnias. لم ترى فقد قد الأقدام ke Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu ngi ndokke julli yépp ci wér wi nga xamné yalla ci la maye ki gën ci lépp lum bind mu gën koy bëgg ci lépp lum bind itam nga xamné ku yalla bëgg daf laa fekk ci biir bëgg yonent ak topp ko mu bëggaale la mu bëgg la ndeg loola taalibe dëgg sëriñ dëgg buñ dajee foofu la njëriñ de juddoo waaye bu sëriñ amee dëgg te taalibe amut njëriñ du génn bu taalibe amee te sëriñ amut njëriñ du génn taalibe moom moo de koo xam ne dafa am fu mu dëng dëng mooy li yàlla aaye am ci lu nekk ci yow yooyu ñetti xaaj la yàlla aaye na cër bi am na lum aaye cërëb nit ki am na lum aaye xolab nit ki am na lum aaye xelam nit ki ñett yooyu nag boo ci bu fekkee am na ci boo xam ne mënoo ko ba te nag boo dajeeg yàlla ëllëg mën na laa indil jafe-jafe te jafe-jafe yàlla attanu la ci la gën a tuuti nga dem seeti ku la ko dindil kenn ku nekk rek ak nam gis ne yow ni sarsal bi foog ñu dëppoo numéro suñu roof rek njëriñ judd ci portabal bon taalibe mooy portable sëriñ mooy chargeur moom moo mën a jokk ci pieeb yàlla bi indil la li nga bëgg waaye portable du ne fa ñuy waaxu rek sës ko ci fi ñu koy euh, kii rek xam nu ngeen ko tuddee fi fi ñu koy branché rek mu daal di jël déedéet kon waaye fokk nag ñu dëppoo numéro dëppoo numéro ki mooy taalube bi li ko indi mooy dafa dëng bëgg a euh, jub dafa réer bëgg a xam loolu nag su gisee sëriñ boo xam ne mën na koy euh, dindi ndëngam gi te it koy dindi mën na koy xamal su boobaa loolu moo di bi ak portable bi dëppoo nañ numéro waaye su fekkee ne taalibe bi moom dëng ko indi waaye sëriñ bi nag moom noos ak xaxar moo ko indi kon chargeur bi ak portable bi juyoo nañ numéro lu fa taalibe ba yàgg yàgg yàgg yàgg ndëng gi nekk ci moom day yokk waaye du dañ mukk taalibe ngi war a mel ni jiw sëriñ ngi war mel ni paxam suuf paxa jiw balaa jëriñ sekki dañ ko suul mal lañ ci biir pax suñ ko suulee mal lañ bu génnee nag dana génneaale loo xam ne jihaale wuñ ko woon te lañ ko jihaaloon dana ci génne lu ko ëpp boo ji boo jëlee kilo euh, kemb ji ko ci suuf si dana la jox saako te yow benn kilo rek nga joxoon moom mën na la indi ñaar fukki bu nangoo dëgg mën na la indi ñaar fukki kilo dana la indaaleel kot xott wi te yow jiyaale wu la koon dana la indaaleel ngooñ te yow jiyaale wu la koon te am nga ca soxla sëriñ boo ko jubee toroxloo noonu dana la delloosi li taxoon li nga sul ba dana la ko delloosi ba pare dana la dana la joxaale leen loo lu ëpp loolu kon sëriñ noonu lañ koy def ci yàlla waxtu woo ko juree rek suppil say may man ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm rajo bi di gërëm kilifa gi di gërëm yéen ni ko def ngeen ko fi daaw yàlla na ngeen ko fi def diwén ñu ngi rajo bi yàlla na yàlla barkeel ko barkeel ku caay liggéey barkeel kilifa gi ni lislaam barkee weer wi barkee ko seen studio ba seen matériel yi seen ñëpp caay liggéey yàlla nañ barkee noonu ànd ak mucc nag allahumma salli ala Muhammad wa sallam من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه داعين إلى الله الحمد لله مبوك جلل مبوك تالبي من النية نيب سنت والأكسين سنت كان نكوش نيك فومن دي تخاف فومن دي نيك نغي أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النية دي نبوكل تيارو تردين ويارو يونتي صلى الله عليه وسلم من أخبنا بي alhamdulilah weer la boo xam ne pour màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa la moo tax ñu ni ko màggal alhamdulilah weer bu jot at mu jot ci weer wi ñu di ko def fii nag ci Medina Cheikh Ibrahima radiallahu ngi koy def comme ko suñ bàyyi defee ñu fekkee ko alhamdulilah roy ci tànk yooyu ba dinga nga xam ne lii moom la suñ bàyyi sampoon muy jumaam ji samp ko muy néegi yàlla ngir yàlla jëm ci yàlla te yàlla rek tax mu def ko ba mu koy def nag jógoon na ak euh, takku ñaan yàlla yàlla mottali jumaa ji ah mu tombee nag weeru gàmm gi alhamdulilah bi nga xam ne bii léegi yàlla moom du mat mukk toujours ci defar ngay nekk waaye dañu fas yéene woon rek alhamdulilah comme defar nañ ci dara ba toll fii ci année yi ñu toll yàlla def suñu xol yi pour ñu ubbi jumaa ji ñu façon ko yéene def ko ci gàmmu gi boole ko ak ubbitee jumaa ji waaw dañ ko defee nag li ñu suñ bàyyi El Hadj Ibrahima Niass waxoon alhamdulilah rabbil alamin sant ci yàlla rek la ñuy def ndaxte daanaka waa Nigéria ñëw nañ waa Libye ñëw nañ waa Tchad ñëw nañ délégation bi jëlee ko Soudan et Darfour yi yëpp ñu ngi nii toog suñu wet alhamdulilah. te loolu yëpp li ko waral mooy ñëw rek fekkee si ubbite jumaa ji ak itam fekkee si lii nga xam ne lii mooy judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lii nga xam ne lii itam waa Medina Baye Niass jógoon nañ taxaw ci te képp ku naan ashhadu an laa ilaaha illallah wa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rek yaa ngi ciy dox sa tànk tariqa yi alhamdulilah képp ku nekk sa tariqa ba nga nekk tariqa boo xam ne daf lay jëmale ci yàlla la waaye waxuñ ne kii tariqa bii moo baax طريق بلا ما باق طريق بلا ما باق طريق يب الحمد لله رب العالمين شي شيا الله نجم شي شيا الله نجبلو شيا الله نطب الحمد لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله آه لقد حضرنا وفد يتكون من 18 آه، من مريدي آه، الزاوية التجانية بليبيا لنقدم التهاني إلى الشعب السنغالي عامة وخاصة إلى أحباب سيد الشيخ إبراهيم نياس في افتتاح المنارة الكبرى التي ستشرق على العالم بإذن الله بالنور المحمدي صلى الله عليه وسلم ونحن إذ نقدم التهنئة أتمنى من الله العزيز القدير أن يوفق الجميع إلى خدمة الإسلام والمسلمين فإن تولوا فقل حسبي الله لا nga xam ne moo ñu gënoon a itteel ci àddina ndax moo gënoon a itteel bàyyi mu teg ko ci suñu loxo en ko ci suñuy ndodd ay xulafaam gàddu ko dalee ci premier xalifaam Seydi Ali Cissé xalifaam cheikh alxaaji abdullah suñ mag ju baax ja ak cheikh alxaaji ahmad ibrahim Niass mi nga xam ne mu fi nekk fi mu ne nii ki nga xam ne du dara ne na du dara lu mooy taalibe bàyyi dara newut ci moom lu ahmadu rek la leneen lu ngeen ko bëgg a def yéen a baax rek def ko ko jiital ko waaye lu ne yéen a ko gën man loolu la wax te dafay wax toujours nañ ko ko waxal ba yàlla defee mu toog la mu wax mooy mooy mu li mu bëgg de mooy bëgg na am na mbir yoo xam ne di mébét na ko bëgg na ñu miraas bàyyi ci kanamam bëgg na ñu ubbi jumaa ji ci kanamam bëgg na ñu def ziyaara bi muy ziyaara internationale comme ni ma ni mu santaane woon ci lettre daaw ñaar yi nag yàlla def na ko sant nañ yàlla benn bi nag dafa laaj liggéey danañ ci jóg liggéeyee ko majlisu shura bi bu soobee yàlla eh, kilifa yi danañ ko taxawal buñ ko taxawalee première lu ñu xalaat mooy nu ñuy def ba ziyaara bi ñu dox ko wax ko tukkil ko ci àddina bi yépp ba ñëpp xam ne Baay mooy kenn ki nga xam ne moo eyoo ziyaara te képp kuy taalibeem wala nga aju ci moom danga war foo mën di nekk bu bés boobu jotee nga sant yàlla ci moom nga def ci sa ziyaara loo ci mën di man ziyaara du pour xaalis ziyaada la dañ ko def pour bëgg may nit ñi occasion ñu bay ci yoonu yàlla bi nga xam ne moom la dénk bàyyi loolu moo tax boobu point moom danañ ko doxee bii kanam kilifa yi dinañ ko waxtaanee waaye man du ma guddal suma wax danaa gërëm ñëpp képp ku def dara ci lii ñi dimbale nit ñi pour ñu agsi fii ñi dimbale nit ñi pour ñu dund ñi dimbale nit ñi pour ñu am ay waruwaay ñëw ñi nga xam ne mooy ay gouvernement yoo xam ne def nañ ci li yombal nit ñi jógee fa ñëw ba fii ñu ngi gërëm itam gouvernement Sénégal danaa leen wax seedeel leen taalibe yi ak taay ak doomi bàyyi ne bii yoon gàmm gii moom dugal nañ ci seen loxo rajo bi baaxul de hmm? gàmm gi moom mané def nañ ci leen war taxaw nañ ci taxaway bu maga maga maga wa wax a woo xam na bi buñ ko paré ba recensé ko dañ ko wax dañ def conférence de presse liñ def yëpp dañ leen ko wax ma ngi gërëm ñëpp di leen sant yee di leen ñaan yàlla di gërëm presse bi presse nationale et internationale ñu ñëpp gis nañ niñ taxawo gàmm gi gis nañ na ben hadas bu tolni bi amut amul ci adina bi mo tax taxawé nañ ko niñ ko wara taxawé taxawee nañ ko niñ ko waré waneen ñu ngi ñaan yalla eh, ñu delloog jamm ñom ñëpp am ci am ngërëm maa ngi leen والسلام عليكم الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله ويا الله وسلم على مظهر الألوهية عين مرتبتها وسرها صلاة تأخذ بها بمجامع قلوبنا إلى كمال معرفتك العيانية الشهودية كي نترقى في شهود الكمال الذاتي دائما أبدا سرمدا كي نحظى بالمشاهد الذاتية والأفعال الذاتية والأقوال الذاتية والجمال الذاتي والجلال الذاتي جذبا في صحو مع مشاهدة حقيقة حقيقة حقيقة الحقيقة حتى صار الحقائق كلها مجازا بالنسبة إلى مشهدنا يا ذا الجلال والإكرام المدد المدد يا رسول الله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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا ونصلي ونسلم على بذرة الوجود وسر الإيجاد سيدنا محمد بن عبد الله الذي كان نبيا وآدم منجدل في طينته الذي أتانا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ورضي الله عن صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ومولانا ومددنا وسر مددنا قطب الوجود وعالم الشهود شيخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه ورضي الله عن منبع الفيضة ومسير أنهاره وناشر أسراره ومعلم كل من تعلم تحت حضنه شيخنا ومولانا الحاج إبراهيم ابن حاج عبد الله إنياس أيها الإخوة فنحن لو صح أن نقول لقلنا ما قاله الشاعر إذا لما تعجب عن أمر ما وحاول أن يتكلم عنه فأعجزه الكلام فقال إذا اشتد ما بي كان أفضل حيلة له وضع كفي فوق خدي وأسكت نحن أيضا في هذه الليلة لو كان يمكننا أن نضع كفنا على خدودنا ونسكت فقط لكان ذلك من أجل تعظيم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى هذا الجمال المحمدي انظروا إلى منبر الشيخ إبراهيم حيث كان يجلس والأنوار تشع من وجهه بحيث يراه المقبل والمدبر كل يرى عينه ووجهه الباسم المنير وكل يمتد حسب طاقته أيها الإخوة نهنئكم ونهنئ نفسنا كما قال المتحدث الرسمي باسم أسرة الشيخ إبراهيم مولانا الشيخ محمد المأمون إبراهيم أنياس jama'a ba za mu dade ba za mu fara da godiyan wanda ba iyaka zuwa ga dukka wanda suka tashi zuwa madina da dukkan hadarin da suka ga a hanya muna masu marhaba muna masu lalai muna fata allah zai biya masu duk bukatunsu na duniya da na lahira mu almajiran shehu ibrahim ne shehu ibrahim abin da yake so a bayin allah a zama masoyan allah a zama masoyi cikin allah a taimaka juna a hada kai a sa soyayya cikin zukatanmu zuwa ga ko'ina cikin jama'a wannan shine abin da sheikh ibrahim da yake so mu abin da muke aikata ne a nan a wannan fili a wannan hadara ina so an kai ma sheikh ibrahim sakon da ya zo mana daga mutanen ko'ina balle mutanen nigeria saboda kamin wannan lokaci shekara hudu wata, wata shida na je nigeria na zagaya na yi kilomita dubu dari biyar duk inda na je na gayyato su zuwa budin masjid sheikh ibrahim kowa ya amsa gayyata idan ba mu da wani abu da za mu ci sai godiya kawai godiya wanda ba iyaka muna gode maku muna fata Allah ya baku duk bukatunku na zahiri na batini muna fata Allah ya samu cikin wanda za su shiga aljanna tare da Sheikh Ibrahim kama kala lamma madaha Rasul sallallahu alaihi wasallam da yabi annabi annabi ya je shi ga aljanna ka je ka shiga sai ya ce yaya sanyi masoyana wanda suna sona saboda kai بزن إيا iya in shiga kada ni kadai ba sai ce ku كو ko ko dukkan ku صحب الخليل تسابقوا إذا فهذا الوعد يتحقق إن شاء الله وبافتتاح المسجد سيتحقق كثير من الخيرات ولكن بعض الناس يفسرون كلام الشيخ عندما قال بأن المسجد إذا انتهى تنتهي المشاكل نعم ستنتهي ولكن إذا أحيينا المسجد بعد تدشينه بالصلاة فيه والذكر فيه والتلاوة فيه والتعليم فيه والتسبيح فيه فإذا فعلنا ذلك فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يحقق لنا كل هذه الآمال لأنه يقول ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إذا بشرى لكم يا من حضرتم افتتاح هذا المسجد العظيم المسجد الذي كان حلما تحقق بكم وبنا فنحن نرجو الله نرجو الله تبارك وتعالى أن يسجد قطانا دائما لما فيه خير الدنيا وخير الآخرة إنه نعم المولى ونعم النصير teg ci ñetti salaatul faatihi ñu yéene ko Babacar Thiam mi nga xam ne moo daan dundal hamziya bi fii moo daan dundal laabiya bi fala yàlla na ko yàlla jotale yow de ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla jox yool bu màgg boobu ñuy shuhadaa u yoo xam ne ñu ngi dëkkeeg ambiyaa u wa siddiquuna wa saalixuuna wa xasuna ulaika rafiqan fukki fan ñaar muy nit koo xam ne bi mu ñëwee àddina bi yëpp la soppi soppi na gëm yi soppi na jëfalante yi soppi na dund bi dund yi soppi na lépp loo xam ne fekkoon na fi fekkoon na ko fi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy ki xam ne màkka la juddoo màkka la yoroo màkka lañ ko yónnee màkka la commencé di doxal luñ ko yónnee gars yi ne du fi am bu ñu waxee ne fi am na dañoo fàtte ne yàlla mooy ki nga xam ne moo ko yónni te yàlla mu bëgg rek mooy loolu mooy am ñu daal di koy génnee Màkka mu dem Medina ba ni mu demee Medina foofu fa njëkk a tabax mooy jumaa moo tax mbiram jumaa du fonk la loolu tax bàyyi gàddoon ci bakkanam pour tabax jumaa joo xam ne dina dëppoo jumaa ji nga xam ne mooy. dëppoog ngërëm ngëmam ci yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nga xamee ne ñëw na Medina lim njëkk a commencé du tabax kër waaye juma la tabaxoon parce que juma mooy mun talab bi nga xam ne lépp loo xam ne nar naa jëm fa la ñu koy defee fa la ñuy defee julli juróom fa la ñuy jullee ya fa la defee seen conseil de guerre fa la defee seen waxtaan ya fa la ñuy takkee say ya fa la ñuy euh, euh, euh, tasaaree ndono ya lépp loo xam ne lislaam am koy def rek di mooy place bi koy defee moo tax yàlla fonk juma lool juma nag mooy déggu yàlla nga xam ne yàlla wax na ci lu bëri wax na ne wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan neen xam ne juma yi nag yàllaa ko moom bu leen benn tur dén nga dana la ko turoog yàlla yàlla rek mooy borom mooy borom jumaa te moom moo joxe lépp loo xam ne nit ki tabaxee ko yàlla ko ko jox wax nañ ne am na benn ki nga xam ne moo doon premier architecte loolu bàyyi loolu gis plan yi plan bi dégg ko ni ko bàyyi mu ne ko sëñ bi xanaa denc nga alal yu bëri mbaa xanaa denc nga millions yu bëri parce que liggéey bii nga bëgg la laaj mu ne ko denc ma benn million waaye nag ki ma koy defal am na million yu bëri te dana ko joxe wax dëgg yàlla ba mu koy wax booba 1958 la waaye joxe na ko tey gis ngeen tey lépp loo xam ne mu ngi aju ci ak lépp loo xam ne mu ngi aju ci gàmmu bi lépp a ngi niru darab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ngi niru darab yonent bi jumaa ji ci biti. tey ta fi la jullit ñi dundee dëgg-dëgg di tudd seeni borom. ndax seen borom mooy ki nga xam ne moo jar di tudd moo jar a am moo jar a yaakaar moo jar a dem ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tabaxee jumaam ji foofu la commencé di jàngale fa la daan commencé di julli fa commencé di def lépp loo xam ne l'islam bi soxla na ko ba nga xam ne jumaa ji nekk na pôle boo xam ne lii xew lépp foofu lay déparé même ñi ba yonent bi daan yóbbu ci xeer yi ci xeex yi xare yi foofu la leen daan rab eh, eh, rabbale seen mbooloo foofu la leen daan utal njiit loo xam ne moo leen di jiite loolu yëpp foofu la ko daan defee bu dee takk sa itam foofu la woon lépp loo xam ne ñu ngi ko eh, doomu aadama yaa ngi koy soxla rek foofu woon ci jumaa ji kon jumaa am na solo am solo koo xam ne ku tabax jumaa ngir yàlla def nga lu rëy a rëy moo tax guddi gii ku toog fii soo amul boo mënta bokk ci ñiy woy na nga téye sa kurus di jàng ay salaatu ala nabi ba ca gën nag mooy suñ salaatu bi salaatul fatihi doo ci jàng lu mu bëri ci guddi gii daf lay nekkal koom moo xam ne du jeex yowmal xiyaamati kon nañ gën a góorgóorlu ci loolu yonent bi nag juddu ci màkka yaro ci màkka xamul kenn ku ko mës a jàngal benn baat xamul kenn ku ko xamal dara ci loo xam ne nit ñi war nañ koo xam ba tax na sax moom daf daan wax ne moom ummi yu ummi yu nag mooy koo xam ne du bind te du euh, euh, jàng mu nekk ci loolu ba nga xamee ne am na ñeent fukki at di dem xaari xiraa moom xërëm yi nga xam ne éefar yaa ngi ko doon jaamu bañ na leen parce que xam na ne elloo jaamu mu ne man xam naa ne sama borom euh, moom rek moo jar a jaamu booba xamagul naka lay àggee ci yàlla xamagul naka lay xamee waaye mu dem xaaru xiraa in bu demee foofa dafay toog rek di xool jan eh, eh, eh, asamaan si di xool suuf si di fàttaliku di xam ne lii nga xam ne mooy kéemtaan yii am na borom boo xam ne moo ko def borom boobu rek moo jara jaamu waaye kan naka la koy jaamoo kañ la koy jaamu loolu yàlla moo ko may gannaaw ga yàlla moo ebal jibril mu jëw ci moom daldi ne ko iqra yootu bi ne ko ma ana bi xaari jàngal mu ne ko man jànguma mu njett ko ba muy bëgg a dee comme ni mu ko waxee bàyyi ko ne ko jàngal mu ne ko ma bi xaari jànguma ko ci ñoo dem bi mu ne ko maada aqra lan laay jàng mu ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi ma lam yaalam alqan commencé nag di wàcc nag sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi bi ib jibril ñëwee di malaka ñëw feeñu ko te tiitu te rafut ba nga xam ne wax na ko jàngal mu bañ kooku bu doon nit yi kese rek bu keroogee bu gisee malaaka mi kenn dàq ko kenn du ko gën a dàq gën a daw waaye nag moom gisee malaaka mi xam na ne kii yàlla ko yónni ndax moom xam na ne boromam am na lum seq ak moom te loolu dana ko feeñal si moo tax mu yónni jibril jibril na ko jàngal bi mu bañee mu njattu ko mu bañaat mu njattu ko ba ci yoon mu mu iqra bismi rabbika ci la alquran commencé wacc li njëkk wacc ci alquran moy iqra jangal motax tax tubi sallallahu alayhi wasallam neena na taallamul ilma min al mahdi ila al lahdi na ngeen jang xam-xam ci lalab lire ba ca buntu bàmmeel fu digante ñaari digante yoyu feek mu ngi am nit kan koy yek Mumbai dundu nai bu jang nay jang di jang di jang bañ dugal ko ci bàmmeel bi njàng nag moom boo ko defee daf lay defaral sa diine daf lay defaral sa jàmmu daf lay defaral sa liggéeyal sa borom ci liggéey boo xam ne bu xam la bu wóor la kon yonent bi sallallahu alayhi ko jibril wàccee aaya jooju ba pare ne ko nañ wàcc ci suuf mu njàll wàcc ci suuf jibril këddaa tànkam am ndox ball jibril ne ko dama lay jàngal njàpp defal na may def mu raxas loxoom yonent bi roy ko mu raxas mboolem cëri njàpp yi yonent bi roy ko ci loolu bi mu paree mu ne ko lii la ñuy préparé pour dugg ci julli mu daal di jóg kabbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wetam nday xadijatu comme ma nga fa woon moo njëkk a yàlla moom itam gannaaw bu yonent bi julli googu moom yëkk moom njëkk julli Eh, ci ni ko yonent bi defee ak Seydina Ali ibn Abi Talibin kooku itam ci ngoneem la ko yonent bi amee woon ba nga xam ne moom lépp loo xam ne الذي قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحابته الهادين المهتدين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعليكم بتقوى الله تبارك وتعالى والمنافسة في محبة حبيبه وصفوته باتباعه وطاعته والاستمساك بهديه وسنته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعترته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فقال عمر لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر وكان علي بن أبي طالب رضي الله, رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظماء وقد قالوا إن في القلب طاقة لا يسدها إلا محبة الله ورسوله ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها حسرات وهموم وآلام وغموم ألا فسيروا بالسيرة هؤلاء في محبة خير العباد الذي من فيضه حصلت لنا نعمة الإيجاد والإمداد وقد قالوا إن الإحسان يسترق الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المحسن إلى سائر الأكوان مع ما فيه من أوصاف حميدة وأخلاق كريمة مجيدة قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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

اسم ربك العلى الذي خلق فسوى در فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوي سنقرئ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجو ما يخفى ونيسرك يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأعانس أنا وأعاد رسولي لائي بالبرس أعظم وفاء فدعت إلى سواج وما سلم يلد قلبنا أسكياء وأطاع في بيتها جبريل في الأمور تياء ألقى عن القمار لتدري أم هو الوئي أم هو الإخماء فأطبع عندك سهار سجبري فما عاد أو إلى القتاء فتبنى القديجة أنا وكان ثلاثي أولا والكيمياء ثم قام نبي ñii dafa bokk ci mag ñi nga xam ne liggéeyam seen liggéey moo doon liggéeyal yàlla jaarale ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bu tafsir Seydi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu kii ñu daañu ñëpp déwén dafay am téeméeri at. boo demee ca gannaawam xalifaam bu tedd moo lay xalifa bu xaj di taawam xam ne moo jëloon xilaafa ci 1922 ba 1959 mu doo fi jóg. demee ca gannaawam ji nga xam ne rakki xalifatul xaaji Muhammad moom la maam xaaji Babacar boo demee ci gannaawam xalifa biñ mujj a ñàkk ci lew nañu seen moom Mawlaay Alxaaji Omar Ñas fii nag ci daree at yëpp ci bâtiment bi mbooleem doomi alxaaji Abdoulahi Niass fii la ñu tëdd maam Safiya mi ngi fi tëdd maam Cheikh Oumar mi ngi fi tëdd maam Serigne Mbaye mi ngi fi tëdd Cheikh Tidiane Niass mi ngi fi tëdd euh, ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu alxaaji Mouhamed Zeynab mi ngi fi tëdd ca gannaawam alxaaji Babacar mi nga xam ne mooy doomi alxaaji kalifa Niass mi ngi fi tëdd kon fami bi yeb ñi ngi tëdd fi mawlaaya seexul islam alhaji ibrahim yalla dogal na mom mo nek Medina moko sanc mo tëdd fofu ak njaboot googu waaye alhaji abdullah ñas le grand ak mbollem njabotam ñom ñep ñi ngi fi tëdd kon nak fi moy keur gu maggi keur gi tawi tabarakallah genn keur la macha allah gan fi ni ñu dalé Medina ni lañu dalé ñasen ni ñu nekké gan Medina ni lañu nekké ganu ñasen kër Alxaaji Abdoulaye Niass la kon ñi ngi sant yàlla mee ne divisti ñëw nañu pour jël si kër gi ñëw jaaree ci kër maam Alxaaji Abdoulaye dugg ci famille bi ñëw fi nga xam ne mooy sawiya maam Alxaaji bi nga xam ne 1911 la fi maam Alxaaji ñëw rëdd sawiya bi ba léegi ñoo defaraat ko nii ki walaay Cheikh Alxaaji Ibrahim Cheikh l'Islam muy bay ñas macha allah moo ko defaraat ثم مطلدي مالك من كل حال من يبقى قلب الإله يبقى العين لا أمك الفم سينبال بالله الآل وأبي سبتين علي علي وبنيه أغلى الأباء والكمال لك من ملقى ولا ملقى الإلهي قد أراد إلى خبر جسنا أن تموت زادك الله sëriñ bi nee na ñoo ngi ñëw ziare Maulana Cheikh Ibrahim Niass nee na nañ ko daaw alhamdulilah yàlla def na ñu fekkee ko ren nee ñoo ngi ñaan si kanam baay ñu fekkee ko ay at yu bari sëriñ bi nee na ñoo ngi nuyu waa Sénégal ñu ngi nuyu waa Afrique ñu ngi nuyu waa adduna bi yëpp nee na tey bis bi nee na Medina adduna bi yëpp ñoo ngi si biir mboolem nationalité adduna bi yëpp ñoo ngi si biir tey nee na te dara indiwu leen lu dul ngir sant yàlla nee na ngeen sant yàlla nee na ñoo ngi tawasulu si kanamu baay di ziyaare baay nee na di leen wax yéen ñëpp ngeen yaru si kanam baay. ndax baay dafa yaru woon ci kanam yàlla. nee na dafa yaru woon si kanam yàlla. dafa yaru woon si kanam yonent bi dafa dafa yaru woon si kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa yaru woon si kanam Cheikh Ahmadou Tidiane. dafa yaru woon si kanam Cheikh Ahmadou Tidiane Serif radiyallahu anhu. kon nag ñun dañoo war a yaru ci kanam. nee na kon ñun dañoo war a yaru si kanam baay. ndax liñ bëgg ci yàlla lañ ko soxla. nee na liñ si yàlla lañ ko soxla. te moom mooy suñ bunt ci te nee na moom mii mooy suñ bunt ci yàlla. te nag mbir mi yaru rek moo koy joxe. nee na mbir mi yaru rek moo koy joxe. kon nañ leen yaru. nee na kon nañ leen yaru. di nuyu mbooleem sëriñu Sénégal yëpp. nee na moo ngi nuyu mbooleem sëriñu Sénégal yëpp. di leen ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. yàlla dimbale leen ñoom ñëpp. yàlla dimbale leen ñoom ñëpp. ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn message boo xam ne moom la ñuy véhiculer. nee na ñoom ñëpp ñoo bokk muy oote rek jëm si yàlla nee na ku woote jëm si sa bopp waxuñu la mais ku woote jëm si yàlla rek ñun ñu ngi ànd ak yow ndax yàlla rek lañ lañ àndal ndax yàlla rek lañ àndal Cheikh Ibrahima nag lim ñuy digal nee na Cheikh Ibrahima Niass lim ñuy digal déglu leen nee na mooy ñu bëgg sëriñ si yëpp bëgg yëpp respecté leen respecté leen di dimbalewante ak ñoom te bañ di xuloo te bañ di xuloo mbaa ñuy xeex mbaa ñuy xeex ndax ñun ñooy benn mbooloo ndax na ñun ñooy benn mbooloo boo xam ne ñoo bokk benn alquran boo xam ne ñoo bokk benn alquran bokk benn yonant bokk benn yonant sallallahu alayhi wa sallam bokk benn kaaba bokk benn diine muy lislaam bokk benn diine muy kon nag dañoo war a ànd ñun ñëpp nee na kon nag dañoo war a ànd ñun ñëpp dimbale di dimbale wante te bañ di xiiroo te bañ di xiiroo wante dafa am ay noonu lislaam. na ndax dafa am ay noonu lislaam. yoo xam ne dañuy bëgg a néewloo doole. ñoo xam ne dañuy bëgg a néewloo doole. léegi nag ñun suñ néewalee suñu bopp doole ci suñu biir. nee na ñun suñ néewalee suñu bopp doole ci suñu biir. dafay tax doole ci suñu kaw. day tax ñooñu am doole ci suñu kaw. te loolu du intérêt benn te nee na loolu du intérêt benn sëriñ. du intérêt benn jullit. du intérêt benn jullit. moo tax ñu ngi tàllal suñu loxo. nee na moo tax ñu ngi tàllal suñu loxo. mbooleem jullit yëpp. mbooleem jullit ñëpp. di leen oo. di leen woo di lex ñu pour ñu ñëw yalla bi nga xamne ñun ñep ñoo fa wara dajé ñun ñep fa lañu amé amee pour and rek jëm ci yalla di dimbalante ci yalla pour di préparer pour di préparer bës bi nga xamné bës bi nga xamné moy bës bés yi nga xamné moy bës yi nga xamné ci le ëlëk nit ñi di jëlé seen bénéfice ci le ëlëk nit ñi di jëlé seen bénéfice juma ji nak ñu ngi koy ñu ngi ni néna juma ji nak ñu ngi ni adduna bi yëpp ñëw nañ. nee na buntu bi ubbeeku na. taal nañ suñuy tàkk. nee na nee na tàllal nañu suñuy loxo. di oo mboolem jullit yi. di oo mboolem jullit ñëpp. pour ñu ñëw. ñu ànd. liggéey bëggante. gannaaw loolu. nee na gannaaw loolu. ñu ngi gërëm Serigne Bara Mbacké. ñoo ngi gërëm Serigne Bara Mbacké. xalif général de Mouride. xalif général de Mouride. léegi la fi yónnee ay gëléem ak ay nag. na léegi la yónnee ay gëléem ak ay nag. nee na te dara taxul mu yónnee ko. lu dul kóllëre bi nga xam ne. lu dul kóllëre bi nga xam ne. moom moo doxoon diggante diggante famille ak famille Cheikh Ibrahim. diggante famille ak na Cheikh Ibrahim. diggante Serigne Fallou ak Mbacké. ak euh, Cheikh Ibrahim Niass. ak ak Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass nag. nee na Cheikh Ibrahim Niass nag. xaritu jullit yëpp la woon. nee na xaritu jullit ñëpp la woon. xaritu si yëpp la woon. xaritu Serigne yëpp la woon. xaritu ñu baax ñëpp la woon. xaritu borom xam-xam yëpp la woon kat la woon nee na soo xoolee néegam bii nga xam ne néegu suuf la néeg bu màggat la nga xool si wetam gis jumaa ji nga xam ne ni mu am si alalu àdduna yëpp def na ko si di nga xam ne emalewut ak yàlla dara la ak boppam emalewut yàlla ak lenn nee na kon nag nee na bàyyi ñun ñoo ngi nii deku suñu loxo yalla di ñaan yalla yalla fajal mbollem ajo ci soron ci soron ci soron terang bi nga xamne ne fi tey la ko fi sa ci léegi yàlla ko yàlla sàmm te yàlla dolli ko wér te dolli ko kattan wax dëgg yàlla at mu jot ci tabaski lu mel nii dana ko def gàmmu gu jot gàmmu daaw ga yónnee na fi nag ak gëlam gàmmu ren gi nag ak gëlam loolu nag soo amee dara lu muy dund li muy junj dafay firi Cheikh Mouhamad Lamine Bara xam na ne moom njaboot gi nekk Medina Baye tey njabootam la ndax moom yëg na dëkk bi yëg na Baye Niass xam na kan mooy Baye Niass te eh, am na yoo xam ne yu bëri yoo xam ne yu doxal diggante Mawlana Cheikh Ibrahim ak baayam bokk na ci ngan gi nga xam ne dañ koy fàttaliku toujours mu neex ñu torop muy ngan gi Baye fàttaliku eh, ngan gi Baye jóge woon fii dem gane ji ko Touba. bokk na ci li nga xam ne moom lañuy fàttali ko ba tey jii tey tey jamono yëpp ñu ngi koy bëggee photo bi nga xam ne Baye Niass mi ngi lëngante ak sëriñ Fallou mi ngi ko lëng ñoom ñaar ñuy waxtaan bay ree photo boobu Cheikh Mouhamed Lamine Bara moom nee na ma wax nañu ne moom moo ko moom moo ko tiire woon moo ko photo woon ndax mu ne li taxoon mu photo ko daf leen a gis ñu taxaw ñoom ñaar mooy leen yéen ñaar ñi taxaw dey seen taxawaay bi neex na yàlla torop te naqat ne seytaane dama bëgg comme jamono dana ñëw ba nga xam ne am na nit ñoo xam ne dañ cee war a jariñoo dama bëgg ma tiire leen carte photo leen bu ëllëgee jamono jariñu ci yaakaar naa tey photo bi foo toll tey gis ni ñaa ngi koy jaay ni ñaa ngi koy jëfandikoo euh, liñ ci gàttal daal di ko wax ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Mahdi mi nga xam ne moom xamante ne ak Cheikh Mouhamad Lamine Baara bu baax a baax ndax ñoom ñaar bokkoon nañ nekk ci bitim réew muy euh, nit koo xam ne man de ci li ma natt te xam ko ci njub te jàngee ko sumay bay ak sumay maam euh, Cheikh Mouhamed lemin Bara xam naa ne ku bëgg yàlla la ku bëgg yonent bi la ku ñamee uuf njaboot la Sénégal yëpp mën na leen a uuf dañuy wax ne teraanga boo ko defee ci benn ko ci kër sëriñ yëpp fii Medina Baye ñun loolu la ñuy wax moo tax bi jumaa ji ak suñ gàmmu gi ku ñu ko fonkal fonk nañ la ku ñu ko fonkalul nag danañ jàpp suñ bopp ci yow danañ tey suñ njaamur danañ tey danañ tey suñ bopp ci yow Euh, ndax dafa rëy ci ñun rëy boo xam ne événement la boo xam ne àddina bi yëpp ñu ngi bëbb di ñëw fii di ñëw di seet euh, jumaay baay ji di ko sanc di ñëw di ubbi si di gàmmu si loolu teraanga la joo xam ne ku ñu ko fonk la rek danañ la fonk danañ la teg euh, danañ teg foo xam ne teguñ fa kenn te Cheikh Mouhamed Lamine baara fonk na kër gi fonkeel goo xam ne maa ngi fàttaliku màggal ga ma teewoon daaw ren teew ma dafa fekk ma dem Mauritanie waaye màggal ga ma teewoon daaw ak suma naataangoo kilifa diine fa ne ba ñëwee ba agsi ci wax ji moom ci boppam moo ma joxoñ ne ma yow yaay wax ci turu kilifa diine yi fi nekk yëpp loolu nag soo amee dara lu muy tegtale dafa xam ne pay bi pay pay yëpp xam-xam la pay yëpp njub la pay yëpp leer nit ki nga xamee ne noonu la tuubaa nekkee pay yëpp xam-xam nekk ko pay yëpp nekkee ko pay yëpp leer waaye nag loolu du loo xam ne lu tumuranke la diggante tuuba ak Medina Baye ndax loolu dafa yàgg ci jamono Maam Alaaji Ablaay ñi ngi fàttaliku Baye Niass mi nga xam ne teraanga ji yëpp moo ko waral xéwal yi yëpp moo ko waral Baye Niass moom radiyallahu taala anhu ba mu amee ñaar fukki at ak benn toll ci ndaw loo xam téere bu ñu wax ruuwul adab te téere ba ba muy jeexat tudd na Cheikh Ahmad Bamba ba ne ko ba tuddee ko ku tedd gi xat xaala fi hadha al majalil amjadu al amjadu mooy lan ci arab mooy ku tedd ki ñu dem ba jamono nag nit ñi murit yi ak taalibe yi suñuy tudd Serigne Bamba rek ku tedd ki la ñuy wax kon ku tedd ki Baye Niass moo ko njëkk a tuddee ba pare tuddee ko xadimu taaha ahmadu xadim ak xaadim bokkuñu xadim moo gën a foor foofu xaadim nit ñi ñoom ñooy wax Serigne Bamba xaadimu rasul waaye Baye Baye moom xadim la ko wax xadim moo gën a foor xaadim euh, kon Baye Niass nit la koo xam ne xam na gëdd ak Serigne Bamba xam na gëdd ak kilifa diine fi nekk maa ngi fàttaliku ba ma toogee ak Cheikh Salih Mbacke ca xelxoom de radiallahu taala anhu lam ma wax bokk na ci li tax sa maam Cheikh Ibrahim gën maa neex mooy dafa xam kan mooy Cheikh Mouhamad Cheikh Ahmad Bamba kon nag ñi ngi ñaan diggante ñaari kër yi yàlla na fi ja jàmm di yàgg nekk yàlla na fi teraanga di jàgg wéylante ñi ngi ñaan yàlla ñaari xalifa yi fi nekk xalifa Cheikh Ahmad Dam mi nga xam ne ay rakkam ñi ngi fi teew ci dëkk bi dara manqué wut soo duggee ci dëkk bi da ngay foog ne xalifa bi dafa tëdd néegam rek nit ñi di def loolu nag soo amee dara lu ko waral mooy ne ay rakkam dañoo jóg taxaw dalee ko Cheikh Ahmad Tidiane ba ci gën a tuuti ba ci Mouhamadul Mahdi mii ba ñuy ub ba ñuy wax ne ubbi jumaa ji boobaa léegi juróom benn weer dafay summeeku moom ci boppam euh, sol pantalon sol tubay aw sa ak njiit laay lu gàtt nekk ca jumaa ja di liggéey moom ak euh, rakkam Mouhamad Abdourahman Ibrahim ak doomi bàyyi fi ne liggéeyal nañ seen mag ba seen mag gërëm leen man day maa ngi seede ne Cheikh Ahmad Dame radiallahu taala anhu euh, Cheikh Ahmad Dame gërëm na ay rakkam ñi ngi ñaan yàlla yàlla dolli ko wér yàlla yàggal ko suñ kanam moom ak kilifa diine fi nekk yëpp ci darajaay Maulana Cheikh Ibrahim Cheikh Mouhamad Mahdi ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal yàlla ndax su fekkee ne def nga lii ci jamono ci xilaaf ak Cheikh Ahmad Daam loolu du lu tumuranke yow nga def ko ndax wax naa léegi ne la man ak yow li ñu boole dafa bëri ñoo bokk baay ñoo bokk yaay ñoo bokk lépp kon ñi ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan dolli sa teraanga dolli sa mbooloo may la jàmm may la xam-xam bu leer te yaatu te wér te may la njaboot goo xam ne da leen mën a uuf ci wërsëg ak ci lépp wa ma zalika ala bi aziz wasalaamaaleykum wa rahmatullah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 dañuy sant yàlla waaye tamit dañ koy sante ci buntab Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu euh, loolu tam lu tax mooy dañ koy jële euh, yax bi ci alquran jëlee ko ci sunna mooy alquran moo ñu wax ne fa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis yàlla bu la xéewalee bokk na ci sant yàlla waxtaanee xéewal ji la yàlla may yonent sallallahu alayhi wa mu ne man lam yashkuri naasa lam yashkuri laa ku dul sant nit doo sant yàlla balaa ñuy wax faydu balaa ñuy wax tarixa dañuy wax lan mooy cërëb jigéen ci lislaam bu jëkk lu jiitu lislaam da ngay am jigéen doom bu jigéen sax waaye bu ñu la nee sa soxna doom bu jigéen la am sax alquran mu ñu ko nettali da ngay gis kooku ñàngal kanamam ñaawal ko lu tax sa parce am na doom joo xam ne bëgg ko woon a am doom ju doom ju góor la buggoon a am ba nga xam ne sax loolu du doy waaye dañuy jël sax seen doom yi di ko suul fekk ñuy dund ba alquran nettali ñu ko ne maanaam dañuy suul seen doom yi jigéen yi di dund ñooñu ñuy suul ñuy dund pourtant defuñu benn bakkaar kon dañ dégg benn bi si suñ turandoor Cheikha Mariama Niass mu wax ne jigéen ñëpp war nañoo julli ci yonent bi sallallahu alayhi waaye jigéen moo gën a war a ëpp lu mu julli ci yonent te jigéen moo war bu déggee yonent rek mu ne sallallahu alayhi wa sallam loolu fa ñu yonent jëlee ak fam ñu indi moo tax Cheikha Mariama wax loolu waaye ñun tam loolu dañ koy dëggal fii nii ki faydu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu duñ wax ne bàyyi fekk na ñuy suul ay doomi jigéen ci zaahir waaye fekk na ñuy suul seen maana mooy lan bu njëkk dañ daan wax ne maanaam jigéen jarut muy jàng dañ daan wax ne jigéen jarul muy jàng xam-xam jarul muy jàng alquran wala même su jàngee al alxuraan jàng xam-xam sax dañ koy tëj ba nga xam ne lem xam du ko mën a exploiter du ko mën a jëfandikoo dégg nga kon loolu noonu dekkal loolu sulli jigéen ñi ci seen ci seen maanaam ci seen xabru yooyu ñu nekkoon te suñu waxee sulli jigéen ñi mooy tinki leen jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam may leen ay lijaasa ñuy yaree comme ni nga xam ne góor ñi noonu noonu la ñu yaree ci yàlla kon loolu Cheikh moo ko delloosi radiyallahu anhu kon li maanaam cër bi nga xam ne jigéen am na ko ci faydu mooy cër bi ab bi nga xam ne euh, jigéen am na ko ci lislaam loolu li muy tegtale kon bàyyi mooy cheikhul islam ndax lim jàngale yépp lislaam kese la alquran moo ñu jàngaloon ne innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati ba te wa zakirina la kasiran wa a aadallahu lahum magfiratan wa ajran azima kon bu ñu waxee jullit bu ji góor rek danañ tudd jullit bu jigéen kon ñu ngi sant ñuy gërëm ñuy ñaanal ñëpp yàlla may ñu ñu dellu si fiwaat ay gàmmu gàmmu gàmmu te gàmm gu nekk yal yàlla may ñu lépp loo xam ne mooy suñ càkkutéef may ñu fan bu gudd may ñu wér barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke Cheikh Ibrahim ci barke jotaay bi nii ci barke jaami yàlla yi nii ci barke borom kër gi tamit pour gàttal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. hay la la la la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 ñun ñëpp l'islam rek lañu doon si maam yi l'islam moo teral Sénégal ba mu agsi fii l'islam moo ko teral ba ngeen gis àddina fu nekk jóge fa ñëw pour Sénégal war nag buñ gisee xale yi jël seen dund def ko ci l'islam di woote dafa fekk ne loolu lañ doon dafa fekk ne loolu lañ xam te fekk itam ne loolu rek moo mën a defar naka jekk euh, euh, réew mu nekk soxla na ay doomam ñu dimbale ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla dimbale leen ñu ngi ñaan yàlla itam yàlla boole leen ci soldaaram yi nga xam ne moom la dig yónnant ne ko jamono bu nekk dina la beesalal sa mbir mi te ay nit rek la koy beesalee ñooy jundullahi fi kulli makaan yal yàlla boole leen ci junnut yooyu boole suñ suñu réew taxawal lépp loo xam ne baax na yal nañu ci yàlla taxaw dimbale ñu ci yal na yàlla dimbale leen taxaw leen mënoon ngeen a soxla lu nekk waaye soxla woon ngeen seen diine soxla woon ngeen seen bopp yàlla dimbale ñu mën a suñuy set ba ba génn leen ci taxayuraat saqaafiya wa taarixiya al anifa jiddan yàlla ñu yàlla dimbale ñu noor leen jazakumullahu xeyran wa barakallahu lakum الحاج عبد الله المشري من موريتانيا هذه مناسبة عظيمة مناسبة الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك حيث كان الشيخ إبراهيم يعلم أن يكون الاحتفال بالمولد رجوعا إلى الله توبة وذكرا وشكرا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بالآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلا محبة إلا باتباع ولا آه، رجوع على الحق إلا بتمسك بهذا الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نص القرآن بعث رحمة للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذا الاحتفال من أعظم مقاصده التذكر هذه النعمة والرجوع لهذا الدين والشيخ إبراهيم كان علم أصحابه نيجي في ci حاج مشري حاج مشري دومي محمد مشري misri محمد مشري كان kenn ci muqaddamu bàyyi Mouhamadou Misri ki ko jur muy Abdoulaye Ibn Haj mooy ki feeñal bàyyi ci senegal mooy ki nga xam ne moo doon laaj yàlla kan mooy asxaabul fayda doon jigéen jiite mbooloo daayira euh, lu yomb la ci baay ndax baay moom nee na amul jigéen góor yalla yeb góor lañ parce que jigen ji bu fi ñi jaar rek la kon góor yalla mo am jigen yalla amul euh, jigen nak damay wax ne dafa nek yar yarkat ndax ku juddu ci jigen nga jaar te li l'islam wax ne mar'a hiya al madrasatul ula moy école bi ci dundu kon jigen école la ci boppam بذكر الذي قد طاب بدءا ومختاما أساجل فيه البرق ليلي وجيرتي يا يا عجبني كالملائكة Ibrahim est le symbole de l'existence. Cheikh Ibrahim, il est le symbole de l'amour. Cheikh Ibrahim est le symbole de, de, de, cette vie-là, qui fait que nous sommes tellement perdus et englobés dans son amour qu'on a seulement refuge qu'à lui. Nous avons quitté la Côte d'Ivoire pour venir vers, vers, vous savez, le Coran nous sort un verset, il y a un verset coran qui nous dit, il dit, il Allah, il dit, accourez vers, le, vers votre Seigneur. Et accourir vers le Seigneur ne veut seulement dire que accourir vers les hommes de Dieu. Or, l'homme de Dieu du temps, de l'époque, de tout le temps, c'est Cheikh Ibrahim. Salam alaikum tous les Sénégalais. Nous sommes des Ivoiriens qui sont quittés Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour venir faire euh, le malou d'ici à Kaolac. Vraiment, pour venir vivre la réalité euh, de Baïnias. Baïnias, vraiment, c'est une réalité. Il faut vivre. Il faut vivre pour connaître la réalité de Baïnias. في النار في لم ترما فقد قد الأقطاب taala wabarakatuh. ñu ngi ndokkeel jullit yépp ci weer wi nga xam ne ci la maye ki bind mu gën koy bëgg ci lépp mu bind itam nga xam ne ku yàlla bëgg daf laa fekk ci biir bëgg yonent ak topp ko mu bëggaale la mu bëgg la ndeg loola taalibe dëgg sëriñ dëgg buñ dajee foofu la njëriñ de juddoo waaye bu sëriñ amee dëgg te taalibe amut njëriñ du génn bu taalibe amee te sëriñ amut njëriñ du génn taalibe moom moo de koo xam ne dafa am fu mu dëng dëng mooy li yàlla aaye am ci lu ne ci yow yooyu ñetti xaaj la yàlla aaye na cër bi am na lum aaye cërëb nit ki am na lum aaye xolab nit ki am na lum aaye xelam nit ki ñett yooyu nag boo ci bu fekkee am na ci boo xam ne mënoo ko ba te nag boo dajeeg yàlla ëllëg mën na laa indil jafe-jafe te jafe-jafe yàlla attanu la ci la gën a tuuti nga dem seeti ku la ko dindil kenn ku nekk rek ak nam gis ne yow nii moo mën a seetal sa tilim tilim mu indi noona taalibeeg sëriñ nag ni ma foog ñu dëppoon ni chargeur ak portaabal bi foog ñu dëppoon numéro suñu roof lante rek njëriñ juddu ci portaabal bon taalibe mooy portable sëriñ mooy chargeur moom moo mën a jokk ci péeb yàlla bi indil la li nga bëgg waaye portable duur ne fa waaxu rek sës ko ci fiñ koy euh, kii rek xaman nu ngeen ko tuddee fi fiñ koy branché rek mu daal di jël déedéet kon waaye fokk nag ñu dëppoo numéro dëppoo numéro ki mooy taalube bi li ko indi mooy dafa dëng bëgg a euh, jub dafa réer bëgg xam loolu nag su gisee sëriñ boo xam ne mën na koy dindi dëngam gi te it koy dindi mën na koy xamal su boobaa loolu mooy chargeur bi ak portable bi dëppoo nañ numéro waaye su fekkee ne taalibe bi moom dënga ko indi waaye sëriñ bi nag moom noos ak xaxar moo ko indi kon chargeur bi ak portable bi juyoo nañ numéro lu fa taalibe ba yàgg yàgg yàgg yàgg ndëng gi nekk ci moom day yokk waaye du dañ mukk taalibe ngi war mel ni jiw sëriña ngi war mel ni paxam suuf paxa jiw balaa jëriñ sekki dañ ko suul ma lañ ci biir pax suñ ko suulee mal lañ bu génnee nag dana génneaale loo xam ne jihaale wuñ ko woon te lañ ko jihaale woon dana ci génne lu ko ëpp boo ji boo jëlee kilo euh, kemb ji ko ci suuf si dana la jox saako te yow benn kilo rek nga joxoon moom mën na la indil ñaar fukki bu nangoo dëgg mën na la indil ñaar fukki kilo dana la indaaleel xott xott wi te yow jihaale wu la ko woon dana la indaaleel ngooñ te yow jihaale wu la te am nga ca soxla sëriñ boo ko jubee toroxloo noonu dana la delloo si li taxoon li nga suul ba toog dana la ko delloo ba pare dana la dana la joxaale leen leen lu ëpp loolu kon sëriñ noonu lañ koy def ci yàlla waxtu woo ko juree rek suppil say may. kon ñu ngi leen di gërëm bu baax de gërëm rajo bi di gërëm kilifa gi di gërëm yen ñi koy def ngeen ko fi daaw yàlla na ngeen ko fi def diwén ñu ngi rajo bi yàlla na yàlla barkeel ko barkeel ku caay liggéey barkeel kilifa gi ni lislaam barkee weer wi barkee ko seen studio ba seen matériel yi. seen ci ay liggéey yàlla nañ barke noonu ànd ak mucc nag allahumma salli ala muhammad wa sallam الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه daayen allah alhamdulilah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant kenn ku ci nekk foo mën di taxaw ak foo mën di nekk ngay wax ashhadu an laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu di leen ndokkeel ci weeru tëdd yi muy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne bii alhamdulilah weer la boo xam ne pour màggal juddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la moo tax ñu di ko màggal alhamdulilah weer bu jot at mu jot ci weer wi ñu di ko def fii nag ci Medina Cheikh Ibrahima radiallahu taala anhu ñu ngi koy def comme ni ko suñ bàyyi defee ñu fekkee ko alhamdulilah roy ci tànk yooyu ba dinga xam na lii moom la suñ bay sampoon muy jumaam ji samp ko muy néegi yàlla ngir yàlla jëm ci yàlla te yàlla rek tax mu def ko bam koy def nag jógoon na ak euh, takku ñaan yàlla yàlla mottali jumaa ji ah, mu tombee nag weeru gàmm gi alhamdulilah bi nga xam ne bii léegi yàlla moom du mat mukk toujours ci defaraat ngay nekk waaye dañu fas yéene woon rek alhamdulilah comme defar nañ ci dara bi toll fii ci année yi ñu toll yàlla def suñu xol ñu ñu façon yéene def ko ci gàmm gi boole ko ak buté jumaa ji biñ ko defee nag li ñu suñ bàyyi rajo Ibrahima Niass waxoon alhamdulilah rabbil alamin sant ci yàlla rek la ñuy def ndaxte daanaka waa Nigéria ñëw nañ waa Libi ñëw nañ waa Tchad ñëw nañ délégation bi jëlee ko Soudan et Darfour yi yëpp ñu ngi nii toog suñu wet alhamdulilah te loolu yëpp li ko waral mooy ñëw rek fekkee si ubbite jumaa ji ak itam fekkee si lii nga xam ne lii. mooy judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xam ne lii itam waa Medina Baye Niass jógoon nañ taxaw ci te képp ku naan ashhadu an laa ilaaha illallah wa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rek yaa ngi ciy dox sa tànk tariqa yi alhamdulilah képp ku nekk sa tariqa ba nga nekk tariqa boo xam ne daf lay jëmale ci yàlla la waaye waxuñ ne kii tariqa bii moo baax tariqa bële moo baax tariqa bii moo baax tariqa yëpp alhamdulilah rabbil alamin ci yàlla lañ jëm ci yàlla lañu jublu yàlla lañ topp الحمد لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله آه لقد حضرنا وفد يتكون من 18 من مريدي آه الزاوية التيجانية بليبيا لنقدم التهاني إلى الشعب السنغالي عامة وخاصة إلى أحباب سيد الشيخ إبراهيم نياس في افتتاح المنارة الكبرى التي ستشرق على العالم بإذن الله بالنور المحمدي صلى الله عليه وسلم ونحن إذ نقدم التهنئة أتمنى من الله العزيز القدير أن يوفق الجميع إلى خدمة الإسلام والمسلمين فإن تولوا فقل حسبي الله لا لا nga xam ne moo ñu gënoon a itteel ci àddina ndax moo gënoon a itteel bàyyi mu teg ko ci suñuy loxo en ko ci suñuy ndodd ay xulafaam gàddu ko dalee ci premier xalifaam Seydi Ali Cissé xalifaam cheikh alxaaji abdullah suñ mag ju baax ja ak cheikh alxaaji ahmad ibrahim Niass mi nga xam ne mu fi nekk fi mu ne nii ki nga xam ne du dara nee na du dara lu mooy taalibe bàyyi dara newut ci moom lu du ahmadu rek la leneen lu ngeen ko bëgg def yéen a baax rek def ko ko jiital ko waaye lu ne yéen a ko gën man loolu la wax te dafay wax toujours nañ ko ko waxal ba yàlla defee mu toog la mu wax mooy mooy mooy li bëgg de mooy bëgg na am na mbir yoo xam ne di mébét na ko bëgg na ñu miraas bàyyi ci kanamam bëgg na ñu ubbi jumaa ji ci kanamam bëgg na ñu def ziyaara bi muy ziyaara international comme ni ma ni mu ne woon ci leetar daaw ñaar yi nag yàlla def na ko sant nañ yàlla benn bi nag dafa laaj liggéey danañ ci jóg liggéeyee ko majlisu shura bi bu soobee yàlla eh, kilifa yi danañ ko taxawal buñ ko taxawalee première lu ñu xalaat mooy nu ñuy def ba ziyaara bi ñu dox ko wax ko tukkil ko ci àddina bi yépp ba ñëpp xam ne Baay mooy kenn ki nga xam ne moo eyoo ziyaara te képp kuy taalibeem wala nga aju ci moom da war foo mën di nekk bu bés boobu jotee nga sant yàlla ci moom nga def ci sa ziyaara loo ci mën di mën ziyaara du pour xaalis ziyaada la dañ ko def pour bëgg may nit ñi occasion ñu bay ci yoonu yàlla bi nga xam ne moom la dénk baay loolu moo tax boobu point moom danañ ko doxee bi ci kanam kilifa yi dinañ ko waxtaanee waaye man du ma guddal suma wax danaa gërëm ñëpp képp ku def dara ci lii ñi dimbale nit ñi pour ñu agsi fii ñi dimbale nit ñi pour ñu dund ñi dimbale nit ñi pour ñu am ay waruwaay ñëw ñi nga xam ne mooy ay gouvernement yoo xam ne def nañ ci li yombal nit ñi jógee fa ñëw ba fii ñu ngi gërëm itam gouvernement Sénégal danaa leen wax seedeel leen taalibe yi ak taay ak doomi bàyyi ne bii yoon gàmm gii moom dugal nañ ci seen loxo rajo bi baaxul de hmm? gàmm gi moom ma ne def nañ ci leen war taxaw nañ ci taxawaay bu mag a mag a mag a mag boo xam ne lëj na bi buñ ko paree ba recensé ko danañ ko wax danañ def conférence de presse li ñu def yëpp danañ leen ko wax maa ngi gërëm ñëpp di leen sant yee di leen ñaan yàlla di gërëm presse bi presse nationale ak international ñu ñëpp gis nañ niñ taxawoo gàmm gi gis nañ ne benn xadas bu toll ni bii amul ci àddina bi moo tax taxawee nañ ko niñ ko war a taxawee wane nañ ko niñ ko waree wane ñu ngi ñaan yàlla ñu delloog jàmm ñoom ñëpp am si am ngërëm maa ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله ويا صل وسلم على مظهر الألوهية عين مرتبتها وسرها صلاة تأخذ بها بمجامع قلوبنا إلى كمال معرفتك العيانية الشهودية كي نترقى بشهود الكمال الذاتي دائما أبدا سرمدا كنحظى بالمشاهد الذاتية والأفعال الذاتية والأقوال الذاتية والجمال الذاتي والجلال الذاتي جذبا في صحو مع مشاهدة حقيقة حقيقة حقيقة الحقيقة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 أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا ونصلي ونسلم على بذرة الوجود وسر الإيجاد سيدنا محمد بن عبد الله الذي كان نبيا وآدم منجدل في طينته الذي أتانا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره مشركون ولو كره الكافرون ورضي الله عن صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عن شيخنا ومولانا ومددنا وسر مددنا قطب الوجود وعالم الشهود شيخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه ورضي الله عن منبع الفيضة ومسير أنهاره وناشر أسراره ومعلم كل من تعلم تحت حضنه شيخنا ومولانا الحاج إبراهيم ابن حاج عبد الله إنياس أيها الإخوة فنحن لو صح أن نقول لقلنا ما قاله الشاعر إذا لما تعجب عن أمر ما وحاول أن يتكلم عنه فأعجزه الكلام فقال إذا اشتد ما بي كان أفضل حيلة له وضع كفي فوق خدي وأسكت نحن أيضا في هذه الليلة لو كان يمكننا أن نضع كفنا على خدودنا ونسكت فقط لكان ذلك من أجل تعظيم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى هذا الجمال المحمدي وانظروا إلى منبر الشيخ إبراهيم حيث كان يجلس والأنوار تشع من وجهه بحيث يراه المقبل والمدبر كل يرى عينه ووجهه الباسم المنير وكل يمتد حسب طاقته أيها الإخوة نهنئكم ونهنئ نفسنا كما قال المتحدث الرسمي باسم أسرة الشيخ إبراهيم مولانا الشيخ محمد المأمون إبراهيم ياس جماعة بزامو za زامو فارا دا za وندبا إياكا zuwa ga dukka wanda suka tashi zuwa madina da dukkan hadarin da suka ga a hanya muna masu haba muna masu lalai muna fata allah zai biya masu duk bukatunsu na duniya da na lahira mu almajiran shehu ibrahim ne shehu ibrahim abinda yake so a zama bayin allah a zama masoyan Allah a zaman masoyi cikin Allah a taimaka juna a hada kai a sa soyayya cikin zukatanmu zuwa ga ko'ina cikin jama'a wannan shine ne da sheikh ibrahim da yake so mu abinda da muka aikata ne a nan a wannan fili a wannan hadara ina so an kai masha ibrahim sakon da ya zo mana daga mutanen ko'ina balle mutanen nigeria saboda kamin wannan lokaci shekara hudu wata, wata shida na je nigeria na zagaya na yi kilomita dubu dari biyar duk inda na je na gayyato su zuwa budin masjid sheikh ibrahim kowa ya amsa gayyata idan ba mu da wani abu da za mu ci sai godiya kawai godiya wanda ba iyaka muna gode maku muna fata allah ya baku duk bukatunku na zahiri na batiri muna fata allah ya samu cikin wanda زاز الشقة الجنة تارد الشيخ إبراهيم كما قال لما مر يبي النبي النبي يجي الجنة كجيك شقة سيجي يا يا سني بسوينا wanda سونا sona saboda kai ba zan iya in shiga ni سيجي كوي sai كو كو دكان كو dukkan ku يا ku shiga يا وادخلوا صحب الخليل تسابقوا إذا فهذا الوعد يتحقق إن شاء الله وبافتتاح المسجد سيتحقق كثير من الخيرات ولكن بعض الناس كانوا يفسرون كلام الشيخ عندما قال بأن المسجد إذا انتهى تنتهي المشاكل نعم ستنتهي ولكن إذا أحيينا المسجد بعد تبشيره بالصلاة فيه والذكر فيه والتلاوة فيه والتعليم فيه والتسبيح فيه فإذا فعلنا ذلك فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يحقق لنا كل هذه الآمال لأنه يقول ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إذا بشرى لكم يا من حضرتم افتتاح هذا المسجد العظيم المسجد الذي كان حلما تحقق بكم وبنا فنحن نرجو الله نرجو الله تبارك وتعالى ان يسجد خطانا دائما لما فيه خير الدنيا وخير الاخره انه نعم المولى ونعم النصير تكتي نيت صلاه الفاتح ني جوخ يول بي بابا كرتيام ميغا خامني مودان دوندال همزيه بي في مودان دوندال لابيه بي فلا يالنكو يالا جوتال يوبي ñoom ñëpp yal na leen yàlla jox yool bu màgg boobu ñuy shuhadaa u yoo xam ne ñu ngi dëkk ak ambiyaa u wa siddiquuna wa saalixuuna wa xasuna ulaika rafiqan Yeah. commencé di doxal lim ko yone gars yi ne du fi am ñu waxee ne du fi am na dañu faté né yalla mo ki nga xam ne moo ko yónni te lu bëgg mo loolu moy am ñu daal ko koy makka mu dem Medina ba ni mu demee Medina foofu la sampé l'islam yalla ñu ko ñëk a tabax moy juma moo tax juma ko fon ko la loolu tax bàyyi katam ci bakkanam pour tabax jumaa joo xam ne dina dëppoog jumaa ji nga xam ne mooy dëppoog ngërëm ngëmam ci yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamee ne ñëw na Medina lim njëkk a commencé du tabax ka waaye jumaa la tabaxoon parce que jumaa mooy muntalaq bi nga xam ne lépp loo xam ne nar naa jëm xaw lañ koy defee fa la defee julli juróom fa la ñuy jullee néew ya fa la ñuy defee seen conseil de guerre fa la defee seen waxtaan ya

leen di tur dend dendale ko tur ak yàlla turu yàlla bi yàlla rek mooy borom mooy borom jumaa te moom moo joxee lépp loo xam ne nit ki tabaxee na ko yàlla ko jox wax nañ ne am na benn ki nga xam ne moo doon premier architecte gis plan yi plan bi ko ni ko bàyyi waxee mu ne ko sëñ bi xanaa denc nga alal yu bëri mbaa xanaa denc parce que liggéey bii nga bëgg a liggéey nii million yu bëri la laaj mu ne ko denc ma benn million waaye nag ki ma koy defal am na million yu bëri te dana ko joxe wax dëgg yàlla ba nga koy wax booba 1958 la waaye joxe na ko tey gis ngeen tey lépp loo xam ne mu ngi aju ci ne mu ngi aju ci gàmmu bi lépp a ngi niru dara bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jumaa ji ci biti. tey itam fi la jullit dundee dëgg-dëgg di tudd seeni borom ndax seen borom mooy ki nga xam ne moo jar di tudd moo jar a am moo jar a yaakaar moo jar a dem ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tabaxee jumaam ji foofu la commencé di jàngale fa la commencé di julli fa commencé di def lépp loo xam ne l'islam bi soxla na ko ba nga xam ne jumaa ji nekk na pôle euh, euh, boo xam ne lii xew lépp foofu lay déparé même ñi ba yonent bi daan ci xee yi ci xeex yi xare yi foofu la leen daan rab eh, eh, rabbale seen mbooloo foofu la leen daan utal njiit loo xam ne moo leen di jiite loolu yëpp foofu la ko daan defee bu dee takk sa itam foofu la woon lépp loo xam ne ñu ngi ko doomu aadama yaa ngi koy soxla rek foofu la woon ci jumaa ji kon jumaa am na solo am solo koo xam ne ku tabax jumaa ngir yàlla def nga lu rëy a moo tax guddi gii képp ku toog fii soo amul boo mënta bokk ci ñiy woy na nga téye sa kurus di jàng ay salaatu ala nabi ba ca gën nag mooy suñ salaatu bi salaatul fatihi loo ci jàng lu mu bëri ci guddi gii daf lay nekkal koom moo xam ne du jeex yowmal xiyaamati kon nañ gën a góorgóorlu ci loolu yonent bi nag juddu ci màkka yaroo ci màkka xamul kenn ku ko mës a jàngal benn baat xamul kenn ku ko xamal dara ci loo xam ne nit ñi war nañ koo xam ba tax na sax moom daf daan wax ne mom ummi yura la ummi yu nag mooy koo xam ne du bind te du euh, jàng mu nekk ci loolu ba nga xamee ne am na ñeent fukki at di dem xaari xiraa moom xerem yi nga xam ne ever yaa ngi ko doon jaamu bañ na leen parce que xam na ne elloo jamu, mu ne man xam ne sama borom euh, euh, moom rek moo jar a jaamu booba xamagul naka lay àggee ci yàlla xamagul naka lay xamee eh, boromam waaye mu dem xaaru xiraa in bu demee foofa dafay toog rek di xool jan eh, eh, asamaan si di xool suuf si di fàttaliku di xam ne lii nga xam ne mooy kéemtaan yii am na borom boo xam ne moo ko def borom boobu rek moo jara jaamu waaye kan naka la koy jaamoo kañ la koy jaamu loolu yàlla moo ko may gannaaw ga yàlla moo ebal jibril mu ñëw ci moom daldi ne ko iqra yonent bi ne ko ma ana bi qaari jàngal mu ne ko man jànguma mu njett ko ba muy bëgg a dee comme ni mu ko waxee bàyyi ko ne ko jàngal mu ne ko ma ana bi qaari jànguma mu njettaat ko ci ñoo dem ñetteel bi mu ne ko maada aqra lan laay jàng mu ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم القرن كما سنك ديواتشنك صلى الله عليه وسلم waaye yonent bi sax bi ib jibril ñëwee di malaaka ñëw feeñu ko te tiitu te rafut ba nga xam ne wax na ko jàngal mu bañ kooku bu doon nit yi kese rek bu keroogee bu gisee malaaka mi kenn dàq ko kenn du ko gën a dàq gën a daw waaye nag moom gisee malaaka mi xam na ne kii yàlla ko yónni ndax moom xam na ne boromam am na lum sekk ak mom te loolu dana ko feñal ci motax mu yoni jibril jibril na ko bim bi mu ñett ko mu bañaat mu ñett ko ba ci yoon mu ñettel mu nako iqra bismi rabbika ci la alquran commencé wacc li njëkk ko wàcc ci alquran moy iqra jangal motax yoni tubi sallallahu alayhi wasallam neena na nga taallamul ilma min al mahdi ila al lahdi na ngeen jang xam-xam ci lalab liir ba ca buntu bammel afu digante ñaari digante yoyu feek mu ngi am nit kan koy di ko dund bu mu bàyyi jàng nay jàng di jàng di jàng bañ dugal ko ci bàmmeel bi njàng nag moom boo ko defee daf lay defaral sa diine daf lay defaral sa jàmmu daf lay defaral sa liggéeyal sa borom ci liggéey boo xam ne bu xam la bu wóor la kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko jibril wàccee aaya jooju ba pare ne ko nañ wàcc ci suuf mu njaal wàcc ci suuf jibril këddaa tànkam am ndox ball jibril ne ko dama lay jàngal njàpp defal na may def mu raxas loxoom yonent bi roy ko mu raxas mbooleem cëri njàpp yi yonent bi roy ko ci loolu bi mu paree mu ne ko lii la ñuy préparé pour dugg ci julli mu daal di jóg kàbbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kàbbar ji watam nday xadijatu comme ma nga moo njëkk a gëm yàlla moom itam gannaaw bu yonent bi julli googu moom yëkk moom rek moo njëkk a julli eh, ci ni ko yonent bi defee ak seydna Ali ibn Abi Talibin kooku itam ci ngoneem la ko yonent bi amee woon ba nga xam ne moom lépp loo xam ne